dañu jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax a baax a baax naa leen tey dama amoon décision xaar face à face bi nga xam ne ni diggante Zos ak ki nga xam ne nii moom mooy Liss Ndiago diggante Ada Fass Gouye Ama Baldé ak ki nga xam ne nii tey moom mooy Gris Bordeaux wax ci diggante Tapha Gueye 2 ak ki nga xam ne nii tey moom mooy euh, Madji Madji ñu naan ko Papa Boy Djiné face à bi dama doon xaar mu jeex tey dama am nouvelle analyse yoo xam ne ni dañ koy ñëwee indi ko mu lu lu bees ci làmb maanaam après face à face dañuy demee toujours ci état wu psychologie ok tey dama bëggoon ñu waxtaan nee naa leen tey kenn du xorom kenn du saaga kenn du wax leen tey ci état wu psychologie la ñuy woote ça veut dire tey bu ñu xoolee ci côté mind li nga xam ne nii mbër yi teg nañ ko tey ci seen plateau combat bi war a doon dimanche prochain ñu xam ci nit jàng ci nit xam nit koo xam na nii li muy wax ndax persistance su comportement am ah persistance comportement am c'est bon wala c'est pas bon wala déclenchement au comportement am est-ce que mën na arriver indi benn affaire boo xam ne nii tey c'est tangible pour la personne elle tey dañuy ñëw waxtaan ci fi ñuy njëkkee dañuy njëkkee ci diggante guy gi Ada guy gi toog face à face jàkkaarloog Ada na ñu dellu. ànd ñun ñëpp lu bees la nag dama leen koy waxaat kenn defagu ko maa koy def te bu ko kenn sàcc état psychologie de toute façon foo nga doon professeur en psychologie pour comprendre quoi boo bëggee dégg-dëgg maanaam faw nga doon professeur en psychologie doo xalaat ci lu nit ki di wax no da ngay xool le non verbal le verbal et le paraverbal de la personne d'abord pour comprendre lan la Bakary di wax faraluñ fi kenn dañuy wax ci sport psychologie nit ku entraîné 3 mois 4 mois pare ñëw toog dernière face à face war a jàkkaarloog adversaire am ñuy xool lan mooy déclenchement au comportement am xool lan mooy persistance au comportement am xool lan la ñu war a mën a indi lan la ñu war a mën a jox ci jour J bi fi ñuy commencé mooy diggante guy gi ak Ada Fass déglu leen sama gars yi ñooy àndandoo dégloondoo ko ah gars yi ci war a commentaire ci suuf commentaire leen ci suuf affaire yi neex gars yi bëgg commentaire commentaire leen ci suuf affaire yi neex carrément kenn ku nekk joxe sa point de mais man à ma perception à man ci samay wàllum diplôme ci li ma jàng ci côté psychologie damay ñëw tegal leen ko ñu waxtaan ci xam-xam ci sport képp xoromatuñ bàyyi nañ ñëpp jégal nañ ñëpp xoromatuñ ah, xoromatuñ waaw Dave Ibra italien <laughs> ça c'est ah, nañ dem déglu bu baax ndax yéen ngi dégg sant yàlla julli ci yonte bi sant suma ñaari waajur di nuyu waa Canaba Seck bu baax nuyu suma papa ak suma yaay di ñaanal Baye As Seck yàlla oyofal yenn bi xalifa général di Canaba ak bépp xalifa général bu fi nekk di nuyu waa Canaba Seck bàyyiwuma kenn suma soxna bi nuyu suma grand frère Mooru suma rakk xiif suma rakk ay sàngaaram ak suma jabaru rakk sama jabaru mag nuyu waa Guédiawaye sama yaay wala Sarr maa koy nuyu baax. loolu mooy base bu baax bi maanaam nga jël micro ci wàllum communication nga remercier nuyu ñi nga xam ne ni tey ñoom ñoo la dooleel ci bis bi kon dañuy commencer def entre guillemets entre buy gi bi nga xam ne ni nuyoo na ak fi mu jeexalee nuyoo guy gi lan la amoon l'impression est-ce que guy gi dafa am nu mu doon préparer wax ko wala guy gi dafa am nu mu ñëwaale toogee man leen daf leen ndànk na yaa su deux obstacles à la communication ñaari obstacle à la communication moom moo am bi ñuy wax externe ak bi ñuy wax interne ñaar yooyu noonu dafay basé wu ci doomi aadama bi am na ñoo xam ne interne obstacle à la communication la am da ngeen ko gisee am na ñoo xam ne externe maanaam ci niveau euh, verbal bi lay nekkee ab tu le vois sur leur visage facilement donc buñ continuer ak guy gi déglu leen ko. ci mel ne Mambay Thiano Bira Paris Assane Sayo suma turandoo nuyu sama grand frère Nas ma koy nuyu bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam di fedd ni suma couleur ak moom suma xarit la suma mag la suma lépp la barki dem bi làmb ji dëgëre ba dëgër daf ma woo ne ma suma rakk nga suma doom nga ñaata nga soxla ñu dugal ko ci làmb ji muy lu lu ma tuuse suma suma xarit la parce que yi jaar nañ ci diggante bi def nañ lu ne guy gi daal di jooy guy gi nee na nas xaritam la nas da koo woo ne ko sama doom nga sama lépp nga te bu leen fàttali ne nas moom mooy doomi Woré Sarr donc guy gi mu ngi presque defee carrière biir kër Woré Sarr nas nekk koo xam ne ni toujours mi ngi ci côté guy gi kon nas xool na guy gi ba combat bi dëgër ci moom pour mu soog koo waxu ko lan moo tax communication amutoon foofu bi muy dem di accepter combat bi en général nas moom mooy accepter combat wu guy gi kon bu combat bi yàggee dëgër nas ne ko guy gi sama doom nga cest dire teguwul en fait lii guy gi di wax ni dafa teguwul kon dafa ñëw teg li nga xam ne nii moom laay wax domaine théâtral domaine théâtral nag moom mooy lan moom mooy tey obstacle interne maanaam ça veut dire que guy gi mi ngi préparé pour dem toucher li nga xam ne nii moom mooy këram pour mën ko permettre guy gi renverser ay ronkoñ pour mën a sortir le stress ça veut dire les pensées toxiques maanaam mooy pensées yi nga xam ne ni moo gën a bon gën a mauvais ci doomi aadama loolu guy gi interne la yoroon interne boobu loolu moom la guy gi bëgg ñëw verser bu ñu naan ko une semaine de ton combat donc ñu jëlee ko ci côté verbal ñaari aspect maanaam guy gi bëgg wax na sénégalais yi làmb ji yàgg na dëgër na kon jekkuwuma buñ ko déggee ci waxi ne jékkuwul deuxième de choses mu ñëwaat gën a leeral carrément daan ne waaye nas lim def baax na ndax koo tuddee doom am na loo xam ne moom moo ko war a def xam nga ndax yéen ngi dégg koo tuddee doom am na loo xam ne moo ko war a def cest à kër guy gi bu ko xoolee ci côté psychologique. ci côté communication guy gi n'a pas été préparé te ba tey laa lay waxaat jusqu'à présent guy gi amagul décision ci Ada Fass ba tey guy gi amagul décision ci à Ada Fass jusqu'à présent ba tey guy gi amagul décision ci Ada Fass donc buñ continuer eh, eh, eh, guy gee ngi jooy père Bakay na ko bul jooy léegi nag bu ñu joxee keneen ki mu nuyoo keneen ki moom mooy Ada Fass guy gi ça veut que face à face bi mu préparer ñëw na li mu njëkk a wax yëpp après jooy la ko daane ça veut dire quoi sortir le pensée toxique mais est-ce que pensée toxique boobu nekk ci guy gi est pas installé déjà est-ce que amu foo kër d'abord parce que bu ñu xoolee nag ci carrière guy gi descendance bi dernier combat yu guy gi guy gi on dirait que du guy gi on dirait que du mbër bañ xamoon tañ naan ko 92 12 12 Thiénaba du guy gi guy gi bii di ñëw mooy la guy gi bi nga xam ne ni day encaisser xaalis ñëw bëreeg yow tagg la moo tax ma leen bu revenir ci biir wax ji danaa leen wax la moo tax guy gi li muy wax nii du ko teg fii du question wu ña nga bëreel ak ñanga nga daan ba tax ne aada waroo bëreeg moom wala warulaa daan bu leen jaawal parce que guy gi ba daanoon Ama balde guy gi ba doon freiné gars yi du guy bii du moom guy gi boobu guy gi bu amoon encadrement la woon guy gi boobu guy gi la goo xam ne nii géejewaay moo doon dox ci biir xolom guy gi boobu guy gi la boo xam ne nii dafa amoon lu muy prouver révélation ñëw fekk ñoom Balla Gaye ñoom Lac de Guiers coow li bëri guy gi boobu noonu mentalité bi mu yoroon tout ce interne ak externe boo ko mën mënaan a booleeg mbër mbër mi day tiit ne kii ab dofa mais guy gi bi ñu gis nii mooy guy gi négociation guy gi boo xam ne nii danaan su daanoo ne yàlla baax na yàlla rek mooy dogal yàlla ma mën a daal mais loolu du sport kon nañ leen ñëwaat ci sport xool waxtaan ci sport waxtaan ci xam-xamu sport ñu dem fekk ki nga xam ne nii moom mooy l'enfant chéri de Fass Ndakaaru Ada Fass Ada. da daa muy ñëwaat xaaral ñu ngi lay nuyu la nga nuyoo ba àdduna. muy gi jooyu nga jël micro bi ci yow. Amadou Bamba Fall. Al Le déclenchement de ñuy xool la persistance de la communication et le comportement verbal de Ada face à face via à Moustapha Gueye qui est devant. bii poser question ngeen dégg aada lu muy répondre question bi mu leeral la link aada face Tafa Gueye foofu ratax la ñu ko gisee dans la communication même les questions ko Moustapha Gueye pose c'est pas des questions hasard question yi Moustapha Gueye di poser Ama Baldé c'est pas des questions hasard ci ngeen war a comprendre ne foofu noonu équipe la donc pour man normalement dans le monde de la lutte tey bu fekkee ne dañuy organiser ay face à face am ay poulain yu war a bëri waruñu ko mën a teg ci plateau mu ne yaay yi day poser question quand adverse bi mënul ne c'est de la manipulation ça ne se fait pas loolu manipulation la Moustapha Gueye en tant que chroniqueur mbir yi nga xam ne du ay waa écuréem au moins war na mën a ñëw def wax lu mu wax pose lu mu wax question mais c'est inacceptable Moustapha Gueye di poser question à la face di poser question naan gars yi ni ñi ngi yemale loolu mënul nekk loolu C'est de la bagarre psychologie. C'est de la bagarre psychologie et ça ne se fait pas. Donc, tout ce qui est interne et externe dans le domaine psychologie, ce que vous la, la, la loi des nœuds et la loi des, des dômes, da ngay xam ne mbër mi dafa soxla lu ñuy wax une boîte dérivation boîte dérivation boobu nga xam ne mbër mi da ko soxla dafa am lu muy laaj moom la ñuy wax mise à terre muy version protection mais bu fekkee ne mbër mi dafa ñëw toog waa ji yor far que benn camp en plus ose de le poser des questions on lui donne le temps de parole non seulement psychologiquement yaa ngi jaxase beneen mbër mi et ça c'est pas logique dans le monde des sports c'est pas logique Sénégal rek donc ñu continuer waat. maa ngi nuyu di la ziar moom. léegi déglu leen aar. macha allah. yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax. yaa ngi nelaw fan yi. maa ngi <laughs> Ada Fass sa donc ici sur le plan non verbal boo xoolee Ada Fass ñu laaj ko ndax yaa ngi nelaw mu ne la maa ngi biddanti nga xool kanamu Ada mu ne la Ada mi ngi soo a yeewu quoi ça veut que booy bi persistance su comportement am moo koy permettre ak la confiance dans laquelle booy bi mi ngi ci même bu fekkee ne état de forme da ngay gis ni guy gi moo ko ëpp état de forme mais booy bi en fait wékkut làmb ji ci état de forme. ku xool aada da ngay xam ne aada mi wékkut làmb ji ci état de forme wékkut làmb ji ci guy gi man maa la ëpp doole tey parce que loolu da koo ñam diggante ak ki nga xam ne nii mooy Zarko mu ne damaa juumoon da koo souligner bu ko déggoo ci ay waxam daa souligner ne dafa am ci lu ma jugee damaa juumoon est-ce que tu peux garder un assurance s'il vous plaît. pare nañ waaw noppi nañ. noppi nañ noppi nañ yaa lan lay dencal lan nga denc lan nga waay lan nga dencal gars yi. confirme ne ñoom pare nañ ci côté préparation noppi nañ mais guy gi jusqu'à présent guy gi amul benn yoon fu guy gi waxee na pare na moo tax man la wax au début ndax guy gi am na décision ci làmb ji nañ continuer. ndaw le 30 xale. soog ensemble bu woon koom. at lañuy indi allah. donc xale mooy ñi wax Ada ndax pare na physiquement wala parewul physiquement mu ne la booy bu ndaw sol ensemble bu wow koŋ ça veut dire que Ada Fass liggéeyam boo ko xoolee la plupart ensemble boo déggee ñu koy wax souvent souvent ci sport un jeune de sportif avec un ensemble solide boo ko day dégg mooy mbër mi lim liggéey yëpp suuf gi la suuf gi moo ëpp kaw gi suuf gi mooy gën a baax kaw gi ça veut dire Arafas il vient pour lutter athlétique ñëwul pour lutter mu diis wala muy lii déedéet Arafas dafay ñëw bëri bëri bu gaaw curux curux gaaw génn tak tak tak mais day fekk boobu tànk yi baax mu mën di wàcc di jug foofu la aada di waxee te da ko souligner te souligner boobu dafa mujjee tuuse guy ci beneen côté ne ko rumeur bi ngay dégg kon dañuy ñëwaat mi continuer ma fa am ba tey guy gi ngi jooy ah. guy gi ah nga dugg na moom nee xale. lu athlète lay indi lu wow indi. waaw c'est normal quand on jeune lutteur. Ah. nga donc Moustapha Gueye waxee c'est normal quand on est doon xale bu ndaw. déglu ko. surtout nag nga dëkk ci gox boo xamante ne. nga dëkk ci gox boo xam ne. ay ndaanaan ñoo fa mës di waree. ay ndaanaan ñoo fa mës di yàlla dugal la ci làmb. yàlla dugal la ci làmb. nga am ci tur woo xamante ne sax xëy na. merci beaucoup foofu laa bëggoon yam ak Moustapha Gueye mu ne Ada Fass nga am tur boo xam ne nii sax xëy na defagoo ko ci làmb lan moo tax lu motifu xëy na donc Moustapha Gueye c'était vraiment logique et véridique day wax Ada defagoo dara ci làmb. doona ko xëy na xëy na ndax lan keppaar ga muy war mais keppaar ga muy waroo mosu ñoo jël roi des arènes kon munoo wax aada xëy na ça veut dire que benn côté bëgg ngaa jàppale aada mais benn côté yaa ngi koy rey ci suuf yaa ngi koy briser moo tax ma ne la communication elle est très importante fii laay waxee ne leen gars yi dañuy wax te duñ xalaat nee naa leen tey nit ku nekk ak niveau am ak domaine la communication dafa am lu muy laaj dans le plan non verbal verbal et paraverbal tey Moustapha Gueye bu laalee ki nga xam ne nii moom mooy aada na ko xëy na ça veut dire mi ngi laam-laamee Moustapha Gueye mi ngi xool nan lay attirer aada pour aada dugg vraiment cent pour cent buri face parce que nag aada bu ko xoolee ci terme de préparation amul choix dem fee nga xam na nii fa la ñoom Gris 2 nekk fa la ñoom Serigne Ndiaye nekk fee nga xam ne nii fa la ñoom Lagros nekk ñoom Pape nekk pour ñu may ko contact parce que boo xoolee école aada boo yooyu aada moo leen mën bu ñu waxantee dëgg te yàlla tax kon entraînement soir bi ci guddi gi c'est normal kon Moustapha Gueye ça le permet d'utiliser le mot xëy na peut-être aada day am misère daan ñafa mais turam dafa weesu romb na ñafa ne donc y a une logique nañ continuer moment ci la war a moom jëfe loo xamante ne tolloo na nag li ñu ci moom mais Modou Mbaye. est-ce que aada xam ne xam na bu baax. mu ne moment bii la war a mën Moustapha Gueye en terme de communication mu ne moment bii la aada war a mën a wane ne ci guy gi tolloon na fu ñu koy toog fu ñu koy teg ba pare mu changer communication bi citer le nom de Mamadou Mbaye comme ça veut dire que je dévie. maanaam moom moo ko bëggoon wax mais wax ji foofu mu dugal ci beneen personne boo xam ne ni moom mooy le second buy def en général foofu ngay amee les électrons et les noyaux le phase et le neutre phase neutre phase neutre boobu noonu la Moustapha Gueye dem seet si ci Modou Mbaye déglu leen ko fi muy daane guy gi ah mu la bëgg laaj mooy yow ndax xam nga guy gi seen ngay combat guy gi xool bëreem xool xeexam maa ngi jàll sama waa famille bu baax waaye famille Koréra mu ne aada ndax xam nga guy gi xam nga guy gi lu muy bëre ndax préparé nga guy gi Moustapha Gueye nekk ci keppaaru aada Fass doon le directeur technique de Fass doon ancien lutteur fait partie l'un des meilleurs de sa génération mu génne question boobu jarax ko aada pour dem jouer ci plan psychologique ki nga xam ne ni tey moom mooy guy gi déggoo leen ma de Moustapha Gueye qui pose cette question en passant parabole par Modou Mbaye citer le nom de Modou mbay te du ngeen dégg vocalu Modou Mbaye là-dedans dafa wëlbatiwaat na ko est-ce que xam nga guy gi est que xam nga guy gi lu muy bëree est-ce que xam nga technique guy gi ay Moustapha Gueye lui-même moom ci boppam moom muy wax loolu Tafa c'est le directeur technique de Fass Tafa moomu doon l'un des meilleurs de sa génération kon psychologiquement guy gi il plus écrasé et touché à 100 pour cent donc ma lay waxaat ne la les pensées toxiques ñi ngi encore toujours ci bopp guy gi ci li guy gi di xalaat à l'intérieur guy gi moom daa jël combat bi wékk ko ci ñëpp man la ñuy xeex làmb ji dafa mujjee dëgër làmb ji dafa mujjee dëgër guy gi moom amagut solution lan la war a def pour daan aada te loolu dinaa ci ñëwaat wax leen lu tax amul solution ba pare ma tegal leen nag li nga xam ne mooy réalité bi nga xam ne guy gi da koo war a bëre réalité bi nga xam ne ni aada da koo war a bëre ma tegal leen ko après te billaay wallaay wa taalaay làmb ji du romb loolu nañ continuer ñu dem. bu baax sama bàjjan waaw di ñaan yàlla su euh, bu baax waaw di jaar tamit sama soxna waaw papa papa moo wàññeeku di ko jaar Ada Fass nee na mi ngi jaal soxnaam bi nga xam ne nii papam moo wàññeeku guy gi dafa commencé ne sama digganteeg nas commencé jooy mais lan moo tax guy gi a pas pris le temps li nga xam ne nii ci souffrance mi ngi koy dund yépp ci biir géejawaay di ko souffrir ak nit ñi bëggoon a yàq digganteem ak nas jël ko dëxëñ ko tourne ko mu doon benn ouragan boo xam ne nii day positif nee naa leen bàyyi leen ci xel ci état psychologique dañuy wax ni les pensées toxique c'est pas les personnes qui nous entourent qui la causent c'est nous-mêmes mooy pensées yu bon yooyu noonu nga xam na ni dafa toxique ci ñun dafa posé wu ci ñun newul nit ñi ñu ñoom ñoo koy def ci ñun déedéet ñun ñoo koy xoolee noonu gisee ko noonu inventé ko ci suñ biir bopp tourné ko niñ ko bëgg a tourné léegi mu am ñaari tournure yu nekk benn bi mooy xaar ma ba nit bët jooy pour gars yi yërëm ma beneen bi mooy xaaral ma ñëw tegal sa nday maanaam man dama laa ëpp doole lu ma sa moroom ci làmb kon guy gi dafa waroon demee ci beneen plateforme pour wax aada jafe-jafewu làmb moo ñu boole awma lu ma lay wax rek ngay doon sa rek ngay mës a doon lim dund lu metti yëpp mu dëxañ ko ci xolam ñëw ci jour làmb ji wane na moom c'est un champion mais guy gi dafa wane faiblesse am guy gi daa wane faiblesse am faiblesse bi moom mooy lan yow yaa ngi jooy mais li ngay jooy mooy loolu dëgg yàlla gars yi maa ngi déglu ci saaga bi dama fàtte dama fàtte de ah, mais xam nga poids toxique bi may wax ak yooyu ay Sénégal yàq nañ ma rek xam nga awa dama ma sax saaga booy booy di ñu may jàmm maa ngi déglu bàyyi naa xorom bi <laughs> ñu continuer perte yi xam naa bu baax. kon li ñuy wax rek xale mooy def amaguma 30 nee na kii xam na ko bu baax xale mooy def lépp amaguma trentant ans jël leen moo boobu ngeen def entre guillemets ma ñëw ak yéen après à la fin Ada am na nu muy bëree day daan am na nu mu bëree day daan bàyyi leen ci xel dégg donc xale mooy def lépp bàyyi leen ci xel moustique ñu ngi koy ziar kon sama frère lu ma jàpp. ma maa ko moom. li ma jàpp man maa ko moom ci kaw sport. aada lu ma jàpp man maa ko moom ci kaw sport boobu aada boo ko xoolee ci côté psychologie moom it dafa am benn petite faille bu ndaw petite faille bi fan lay feeñee moom moo may guy gi sax mu wax ci côté ay dévierge parce que aada dana ci côté sport lu ma jàpp maa ko moom ça veut que aada moom mi ngi xalaat beneen partie aada face bi gars yi di wax. aada sérieux wut aada day taxawaalu aada day dem ci soirée yi aada fii la déclenché may guy gi lu répondre rongoñu guy gi fer guy gi yaakaar ne boo waxee ak ci ton boobu noonu un un lay doon mais ba tey aada moo am nañ continuer hmm. hmm, moom. jàmbaar la compétiteur la sama baay baax la. waaw hmm. ak ñoom. mais man sama bopp laa woon te incha allah rabbi man dama ñëw dëggal sama bopp. bi ñu xoolee guy gi physique am. Mm-hmm. xool sa physique est-ce que say supporters bi ne guy gi moo lëpp doole. non doole amul doole du voli. Mm. non non ay ñun. Moussa Gueye ne ko que bu ñu xoolee guy gi dégluwul piège bi déglu leen piège bu Moustapha Gueye <laughs> ah Moustapha Gueye il est trop fort ce gars il est trop fort moo tax ma leen c'est pas normal. ay poulain Moustapha Gueye war a bëre Moustapha Gueye toog di poser ay questions mënul nekk ça écrase l'autre lutteur nee na ko boo xoolee guy gi est-ce que doolee guy gi moom moo la ëpp doole pour ñu pousser guy gi ñëw ci jour làmb ji imposer Ada Fass doole Ada daan ko donc ci plan psychologique dangay gis ne Moustapha Gueye day jël hameçon bi sànni ko ki nga xam ne nii moom mooy guy gi guy gi nar koo warax ki ngay gisee nag guy gi commencé tontu ay tontu dof <laughs> non eh, vous avez donc dégg bi mooy fii dangay gis ne posé na ko question léegi aada na ko carrément doole du volume foofu nag damay wax ak coach yi doole du volume waaye volume mooy masse te masse daa diis dégg leen li may wax doole du volume mais volume mooy masse te masse dafa diis dégguñu ma de doole du volume volume mooy masse waaye masse daa diis léegi nag.